abaa ah, booy kaay la ñu répété boobu. waaw waaw non booy heure répété bi jot na. ngoon non dafa nànk. yéen a ngi plaidoyer. Uh-huh. fii nga xam ni àdduna yëpp ngoon ñu ngi leen di xaar pour spectacle. nañ leen def ful ñu répété ku ne ñibbi daam. Uh-huh. eh kaay la ñu répété heure bi jot na. ah bi jot na. kii Diouf. daam man daam lu ma jaxal lu ndaw lu ma bëgg a laaj rek. yéen a ngi font quoi. waaye yow Diouf démb seetaan nga télé. ah démb kan moo seetaanul télé. waaye yow adduna yëpp seetaan télé démb. ndax man seetaan ngeen Youssou Ndour lu mu def arena ah da koo feesal ba mu fees del del del duy ko la def ba mu fees lijaay xaw ma Diouf kii damaa yaakaar ne dafa dof man waxuma ay waxi na mu doyee arena ba na mu feesee man li ah. ma gën a métti si mbir mi mooy waaw Youssou Ndour embouteillage bi mu indi si ab embouteillage bi 4 kilomètres yoo xamante ni nit dem nga lii nit mënul dëkk oto mënul dem oto dëkk te am na si ñoo xamante ne si ba ñu góorgóorloo taaba taaba dem ba ci buntu arena bi ndeysaan yàlla daal def yëf a jeex ay yow a ma métti xam xam nga yéen li ngeen waroon a laaj ngeen laaju ah da ngeen a xool d'abord kan moo organisé hmm. kan moo woote ki woote kan la waaw jar naa laaj nan la toll lu mu def ci réew mi nan la def ci adduna bi Youssou waaw dafa feesal Bercy ndeysaan te defu ko benn yoon defu ko ñaar yoon defu ko ñett yoon bisu ba mu fees bari na bari na xam nga ni Bercy dañ koy yokk di wàññi. waaw Youssou da koo feesal ñu yokk mu feesalaat ko. ñu yokk Youssou feesalaat ko. loolu doyul de yéen a may dégg. waaw est-ce que yéen may xool bu baax. mu dem ci festival yi gën a mag ci Europe. dëgg la ba biir Wembley. festival yi gën a mag. Youssou tas ko. ndeysaan. amul adduna bi fu ñuy wax te Youssou Ndour tegu fa est-ce que xam nga Youssou Ndour mooy ki ëpp lu muy dugg ci musiciens yi ànd groupe mhm. am. na ci benn livre boo xam ne boo demee da ngay fekk ñu bind ko fa. Ah! kon kii réew mi war nañ ko rendre hommage man dafa bokk sam sama programme. Mhm. dañ ko war a rendre hommage ndax dafa liggéey lu rey da di yoon da di yoon. Uh-huh. dafa am lu bëri lu mu liggéey ci Sénégal. yoon la yoon la. kon bu wootee. Uh-huh. réew mi war naa mën a jug. looloo tax arena mel nu mel. waaw naa la xamal ñaar. waaw ma bu ngeen duglu bu baax ak yow la ñuy déglu arena. jiyee biir si feesal ko moo gën a yomb feesal. Eh, arena eh. lu leer naa lay wax. mu ni mu ni. arena kii mu ni si. feesal Bercy moo gën a yomb feesal. waaw yow Diouf xanaa Bercy du dagg ticket rek organiser waaye mu nit ñi ñibbi. waaw du loolu. arena waaw mooy arena. waaw loolu nga yaakaar yow loo yaakaar yow. man de fu mu toll nii Diouf xam nga lu may wax mooy man Bercy boo fay dem fu mu toll il faut nga ami million doo ko dem mais fii nii fii fii fii. yow comp comprendre loo. arena du grand théâtre. waaw grand théâtre da nga jël fay ko 2000 mu yóbbu la. waaw nga dem grand théâtre. waa Medina rek bu ñu jugee mën nañoo feesal pour muy leer arena non du 200 kilomètres. yow da ngay déglu yow comprendre du daam man soo xamee. daam soo xamoon doo wax daam bàyyi Diouf wax rek. soo xamee soo xamoon doo ah yow mii ëppal nga di mbay. Oh, damay jaxase quoi. ah yëgg arena waaw boo jëlee ci ci pelouse bi boo ko jëlee. ak ah. tribune bi moo ëpp Bercy. di di kay. déglu rek mais li ma bëgg a wax mooy. arena fi may jugee ku jugee Dakar di ñëw arena ñaata kilomètres lay def maximum 20. 20 20 waaw moom arena jam ñaajo la nekk mi ngi ci digg bi presque arena mi ngi ci digg diggante Kees ak euh, ak ki jógee Kees di dem jam ñaajo dina daw 30 wala 35 kilomètres 35 boo jógee Tëngéej mën nga daw 10 kilomètres wala 17 waaw Kër Ndiaye Lo si Boxtaan maanaam dafa jegewul fen foog nga def foog nga foog nga sawar ah. Ah, am ay moyens pour nga mën a dem euh, arena ba foofu laa bëgg a waxe ak yéen maanaam dem fa moo yombul ah. non ku ci dugg ku ci dugg toppare woo ko doo dem de non ku ci dugg toppare woo ko doo dem organisation bi yombul pour nit ñi sawar pour dem waxuma sax dagg ticket mais sawar pour dem dafa am lu mu laaj boo fa organisé réussir ko comme nii c'est pas facile. Mhm. mais nag ki ki woote moo toll noonu. ndeysaan mais xam nga lu ma jaaxal. Mhm. secret bi ngeen ma laajul. waaw luy secret bi. ba ngeen dalee gis Youssou muy way ba tey ndax mus mus ngeen ko gis mu jooy. musumul gàmm keroog arena Youssou daa jooy il a dëgg la <laughs> dafa jooy. seetaan naa loolu. yow yow xanaa seetaan naa loolu. ah seetaan naa ko mais man kat dama ko seenu mu daal di pëlëre fenn. su jooy na non non jooy classique. non waaw jooy am classe la jooy. jooy jooy jooy. Ah, bi. Ah, da ngeen jooy. lan moo tax Youssou jooy. yéen yéen a bëgg a neex léegi waxtaan bu neex. Ah. Youssou. nee naa la duñu ñëw Wembley. Mm-hmm. waaw ñëwoon bàyyi baa ngi bëgg a neex uh-huh. dafa du Wembley ba mu fees. jóge fa duy Bercy ñaata yoon ñaata yoon li yus duy Bercy. bari na mos nañ koo gis mu jooy. déedéet lu tax mu jooy arena. li may question looloo jaxal ñëpp. Youssou. dafa duy arena ba mu fees. la nekk ci biti ëpp li nekk ci biir. dëgg la mu yéene leen ñoom ñu dugg te mënuñoo dugg. am na ñoo xam ni.

te olof nee na. Ah. ñaare man tënt ñett. déedéet mu xam ne public bi du ko bàyyeeg moom. yu sax amul nu mu ko faje ah. mu tuuri xéwal mu jooy. mu bàyyi rangoñ wàcc. waaye waaye looloo waaye yow maîtrise nga jëf de jëf mu bàyyi mu jooy noonu la ko fajee. ndeysaan. ndeysaan waa léegi ñun xam nga li may wax. waaw léegi man Youssou lan lay utiti bérti fu mu toll nii man. looloo ma jaaxal loolu may question bi. lan lay man day sama xel mooy. waaw kii kii wàll yaan ne sa dëgg daa tëggul mbay dëgg dëgg nag. bu lam daan defi bersi. xaj na biir arena. non xoolal non man di d'accord na ak yéen. Hmm. maanaam li mu war a def ci adduna bi def na ko. ak sénégalais ni ñu mel ci moom ak suñu tëg ni ñu ko bëggee léegi daal ndeysaan mbay ci dëgg dëgg ci dëgg dëgg ñooñu su toog ci réew mi ah. di bëggal ra waa réew mi ah. ndax réew mi soxlañ ko doomu ndey soxla bu jooju ah. réew mi soxlañ ko man daal yuusu ah Ndoye ndeysaan le dik waaw kay waaw waaw Youssou ah, lu muy wuti lu muy wuti Bercy Youssou looy wuti Bercy ah Sénégal looy wuti Bercy tali ma jaaxal sax man ah bi ci Sénégal lu muy wuti Sénégal loolu ci bés Aba Dame ah li ma jaaxal man. Ah. loolu la ci Bercy. hey Youssou kaay. sax tey